أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير mbokku Eh, loru la Sam TV ñi ngi leen di nuyu mbolam yi nga xam te ñu ngi seetaan seen seen bii te di jëriñu ci xam-xam yi nga xamante ni ngi ko ci faral di tabal no ngi leen di jaajëfal bu baaxa baax di leen bal haq ta di leen bal haq ci wéru tedd wé nga xamante ni ci lañ joggé di ñaan yàlla bu mo li ñu jéggal ñëwaat na seen mbokk Serigne Ousmane Sam Nooru lah nekk fii ci Thiès mi ngi leen di siyaara bu baax a baax a baax a baax ak fu ngeen mën di nekk woy leen di abone ci seen bi su ko defee bépp vidéo bu ñu tàbbal rek da ngeen ci mën a jot jot bu gaaw a gaaw a gaaw su ko defee ñi ngi nuyuwaat mbokk yëpp nag ak fu ñu mën di nekk mboolem nga xamante ni ngi soxla ay listixaara xam seen biddiw mooy consultation en ligne seet bu leer incha allah tegu ci alquran ak yëfi mag ñi te defee ñu seetal la wax la sa biddiw sa sarax ak ya ca aju ak lépp lu ne sa yaram te di gàllankoor moo xam ci mbir shayatin la fi umur shayatin wal jinn ak saalum ci man doon rek ñu saafara ko ci kattanu yàlla kon ñëwaat na di leen jaajëfal bu baax te ñu ngi ñëw ak nag ci yoon bu yéeme yéeme boo xam dañ ko maye tey incha ñu gën koo xam ci allahu xayum xayumu tam tamasun allahu xayum tam tamasun nag danañ ci ñëw incha allah waaye liñ ciy jukki rek mooy baatu tam tamasun moom cent 158 euh, moom lay tollool nga defee génn ci iyaaka naxabut génn ci komti yu génn ci yaayu Moussa muy xaanitu waaye nag dañ ci idaafa allahu xayyul qayyum 66 174 240 mu jox la nga dolli ci 158 bu ko defee lim bi dafay nekk 399 moo juumu waaye yoon bi ñu ciy joxe tey ji rek incha ci kattanu yàlla mooy yoon bi nga xamante ni moo yoonu 1580 1580 mooy nga jël 158 madrub ashra maratin fukki yoon moo lay jox 1580 waaye yoon bi ci jaar incha allah mën nga ko sikkar ci juróom-ñaari fan euh, wala nga liggéey ko ci juróomi julli yi euh, ba tey baax na waaye fexeel mu mat rek su ko defee da ngay def astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum moom ngay sikkar 100 fois mooy téeméer nga julli ci saydina muhammad alayhi salaatu wa salaam ci siixa bi nga xamante ni moom laa la wax nii allahuma salli ala sayidina muhammadin rafihu darajaati waduud nga def ko adadu 92 mu dellu ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci turam su ko defee da daal di tàmbali sikkar bi alhamdulilahi rabbil alamin 150 nga koy sikkar daal di jël allahu qayyum qayyum tam tamasul nga def ko 1580 nii nga koy toppee jër eh, rahmaani rahim 158 allahu qayyum qayyum tam tamasun 1580 eh, nii nga koy toppee eh, jël maaliki yawmi diini 158 allahu qayyum qayyum tam tamasun 1580 noonu nga koy toppee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin 158 allahu qayyum qayyum tam tamasun nga def nga def ko 1580 ba tey nga daal di jël ihdina siraatal mustaqim 158 euh Allahu khayr khayr tam tabassum 1580 siratal ladina alhamta alayhi 158 الله euh, Allahu khayr khayr tam tabassum 1580 خير المحضوب عليه ولا الضالين امين 158 الله خير قيم تام تام 1580 غا تجي كو صلاه الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اقلق والقاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم nga def ko mom adadu 92 euh, mu deluat ci muhammad ni moy secret bi nga xamanteni mom lañ leen indil waye ni mako waxe rek so de dang koy def riyanda juroom ñaari fan sax su da ngay jël ben aya ak turu bi tambali ko dimanche mu jeex samedi so de dang ko bëgg def riyanda euh, ci ci jour bi mu mat ñi xam dañoo tàmm kurus ku tàmmul kurus nag nga koy def noonu mais xam ñi miin nañ kurus tàmm liggéey su boobaa mën na ko sikar ci ni ma ko waxee nii waaw mën na jël suba gi mu jël benn aaya ak tur bi tisbaar mu jëlaat beneen takkusaan mu jëlaat beneen gee mu jëlaat euh, timis mu jël benn gee mu jël benn day am juróom ñaara ci des mu bàyyi ba guddi gi xaaj mu matale ko waaw boobaa day si suur si bi rek day am lépp incha non nga koy toppe so nak nag ko jurum ñaari fan bi nak mo gën te mo gëna a dal sasu nga jël ben aya euh ben tur bi laa xey xey tam tamasu 1580 top ko ba mat jurum ñaari fan su dé dang koy liggéey tamit lépp lo ci yéne ci xéewal yalla man dala ko defal ndax secret bu gawa a gaaw euh, li mom moom ndewenal la rek duñ indi won don ko baxé mbokk jullit yi ndax euh temps dafa seer ndax Sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalik bi ànd na waxta sax seen min ans fa ashkilahu bil ans temps dafa see soo koy paase na ko paase ci lu am njëriñ daa di wax ni li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tan lam tan jëli yumkinu an yastariya kanzan biha la yatanaha xayruha fantabiha nee na dikki bépp nokki ba mu nokki wurus la mu jaarul ci tëgg mën naa jàppandi ci wurus boobu mu jënd ci coffre-fort boo xam ne du jeex mukk mukk mukk mukk kon nañu fonkaat suñu bopp fonk jaamu yàlla waaye nag wér dañuy joxe yëpp nag loo ciy def nag nga jiital ci jëmmi yàlla ci waaw ñu joog ñaan sa aaju def ko ngir suñu borom jaamoo ko yàlla ñaan ci ndax eh, tur yàlla pour mu nangu dëkk yow mi koy sikar da ngay fexe ba li ngay sikar nga jiital ci jëmmi suñu borom soo ci jiitalee jëmmi yàlla ji rek soo ci ñaanee rek suñu borom dana la wuyu wuyu bu gaaw <coughs> ndax yàlla soxorul doomu aadama rek mooy yor mbir di ko nëbb ak da ci kii waaye yàlla moom ku yaatu la inna laa waasun alim eh, te suñ borom wax na ni maa indakum yan fadd wa maa inda baax li li ne fi ñun day jeex waaye li ne fi yàlla du jeex comme yàlla du jeexal nañ ko ñaan adduxooni astajib lakum te yàlla wax nañu ko walillaahi asmaal usna fad'uuhu bihaa am naa tuni sell ñaan leen ma ci te yàlla nag jaam bi koy ñaan moo ko gënal jaam bi ko ñaan ndax ñaan yàlla dafay tegtale yow jaamu yàlla nga da am loo tëlee mënoo dara nga ne damay ñaan suñu borom te loolu dafay dëggal eh, sa njaam loola moo tax yenn tur yàlla yi nga ci ñaan sa aajo baax na waaye nag jiital ci jaamu yàlla eh, jiital ci tawasulu ci yonte bi def ko hadiya ci muhammad salaa salam salaatu bi su nga defee nag soo ci ñaanee rek suñu borom dana la defal li nga bëgg waaye nag bul bëgg rek ni xaalis daa ci wut rek ndax li muy maye ëpp na loolu ndax dana maye leer mooy anwaar dana maye wërsëg dana maye jamaal dana maye xëyba dana maye lépp tur yàlla loolu lay def waaye boo yemee ci wërsëg bi rek ci xaalis ci loolu rek ngay am nga defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax seen mbokk la Serigne Ousmane Sam lekk fii ci euh, quartier R100 Thiès nga defee ñu bàyyi xel bu baax ci numéro bi mooy 77 567 97 19 wala nga jël 70 305 81 33 nga defee ñi am dañuy bëgg set seen mbir ak listixaar ndax ñaan lu moom dafa baax ndax yi gàllankoor nit dafa bari rab day téye nit